Le ils sont dans le désarroi. Les presse bi wax ni licenciement préparé euh, du mais dina am am on va tout faire pour rencontrer les employeurs faire le maximum pour que tout se passe dans les conditions et les meilleures. léegi kañ vous fas rencontrer le patron de la ville bon patronat bi peut-être que ñun duñ leen rencontrer directement mais il y a des syndicats yo, chez nous des syndicats hôteliers qui sont habilités qui ont été euh, désignés pour ça ils vont ils vont le faire incessamment parce qu'on n'a pas encore reçu de lettre officielle de qui que ce soit euh, ci suñu collègues yi gisuñu ci kenn qui xam ne présenté nañu nañu ah moom de dañ koy waajal wala wax nañ ko nangam. association bi effectivement gisaguñu dara dara loo xam ne euh, tiital nañu c'est vrai que l'environnement n'est pas adéquat mais fum tolni toll jotuñu dara kenn ci sunu membre yi ñewul nañu dañ ma bëgg licencier mais amna ño xamné ligéyuñu ne ñu ngi tok depuis lors. kon sen toogaay boobu mel na aussi ñu ngi doon wax mbiru ba cuisine mais boobu léegi déggu déggu déggaatuñu le ba cuisine bi muy champion national euh, bu cuisine. léegi yeen yéen fu ngeen ci toll tay waaw Bocuse bi bientôt on va on va reprendre les rênes parce que ñu ngi waajal ñu ngi waajal Marrakech. ñu ngi liggéey ci suuf mais am nañ yaakaar ni bu ñu dajeek autorités yi lépp dina leer incha allah léegi ngeen fas yéene euh, dajeek autorités yi ak blocus bi ban jamono ngeen jàpp ne ci lay war a mën a am. blocus bi dina am entre le vingt cinq et le vingt six octobre à Marrakech autorité yi bind nañu sunu courier ñu ngi xaar ñu ngi xaar pour ñu recevoir ñu ñu mën a euh, waxtaan ak ñoom par rapport à sa mais li ci gëna bari c'est de l'autofinancement Nous ñun ñoy outil auprès des sponsors auprès des industries agroalimentaires pour que yobbu xalé yi nga xamné euh dañu wara ci concours bi. vous concours ren euh, am est-ce que vous len lolu non dina am Bocuse bi dina am d'autant plus que c'est ailleurs c'est au Maroc té ñom paré nañu pour euh, recevoir ñu courrier yëpp euh, tout est ouvert.

mën nañ domaine hôtellerie restauration tourisme tout est sinistré donc nous savons que nous, ñu ngi avons impact parce que nous avons licenciement à crise économique ndax Covid Nous parce qu'il y a beaucoup de pères de famille qui ne sont pas embauchés dans les hôtels c'est des extras donc nous aussi en général extra les employés ne euh, sont pas embauchés.

di ici dans des hôtels comme xam ne ñu ngi Pullman Teranga des hôtels comme le Novotel des hôtels comme le Méridien euh, alors que kenn embauché wu leen ay extra lañu donc nous, soo leen bëggee yóbbu actuellement au chômage day gën a métti ci famille ak actuellement impact bi nga xam Covid bi créé au niveau national tourisme doxatul économie bi actuellement dafa dafa slow carrément dafa wàcc carrément donc fi nga xam ne feneen war nañ ko a fight pour pour monter see day xaw a jafe si ñoom day xaw a jafe si ñoom day xaw a métti xam nga koo xam ne par exemple yaa ngi ko jël journalier ci loolu rek la yaakaar di xëy si chaque jour pour dundal njabootam nga bëgg ko yóbbuwaat encore au chômage te déjà six mois yi ñu jot a toog rek métti na xamoo nu mu dundee moo tax nit ñi di jooy xam ci ginnaaw sax famille jotoon nañ aide alimentaire présidence beeg yooyu noonu mais fi mu toll nii loolu amatul loolu jeex na donc su jeexee day gën a diis si ñoom. vraiment mun nañ xool daal nan lañ mën a def rek pour jàppale leen pour ñu mun a euh, siggi tuuti ndax ñu xool nan lañ lañ mën a accompagner état bi nan la leen mën a accompagner euh, classe sociale boobu daal